Mhm. acca maa ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen di jaajëfal bu baax di delloowaat ku nekk sa waaye amaat nañ kontante ak mbégte bu baax a baax tey nag ñu fas yéene dalal fii benn kilifa di kàngam boo xam ne mu ngi koy duppee Cheikh euh, Bara Niane nga xam ne nag kenn du ko présenté ci site bi di 221 people am nañ kontante ak mbégte bu baax a baax euh, Cheikh Bara Niane dalal la ci site bi ñu fas yéene waxtaane ci lépp loo xam ne rek dëxëñoo na ci xam-xam auzu billahi mina saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man jaa abil hasanati fala asru amsaliha la hawla wala quwwata illa billahi al-azim alhamdulillahi karim mannan allasi akramna bil quran wasalaatu wasalaamu ala man afsa bil quran ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyoo nuyoo bu sell di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy siifur foo ma di nekk ci àdduna bi loo jege-jege ak lum sori sori ñu ngi lay fekk ba fa nga nekk di la ñaanal jàmm xat-xat yeeg ndog-ndog yeeg jafe-jafe yëpp yàlla wunni ko dàq ko ci askanu jullit bépp képp kuy wax yaa ngi képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu an muhammad rasulullah yéen tamit di leen nuyu nuyoo bu sell di feddale suñu kër la ak yéen te mu yàgg lool di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh euh, Bara Niane am nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax a baax di leen di naan concentré wu leen bu baax rek tey émission bi dañ leen a indil émission bu laa daw me bu doy waar bu neex boo xam ne ñu ngi leen nar indil ñetti secret yoo xam ne nii dina leen ci am lu mu ci leen ci faggul laaya biir leen ci baaxee leen ko tojal leen ñetti secret yoo xam ne nii tey dinañ ci waxtaane bu baax a baax secret boo xam ne bokk na ci bisimilahi rahmaani rahim dinañ ci ñëw ak yaa yooyu dinañ ko waxtaane dina ñëw baara damay bàyyi ñu tàmbali ñu dugg ci secret bismillahi rahmaani rahim ak li mu làmboo ak li nekk ci biir lépp. alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmaani rahim de mel na nit mën na ci def lépp lu mu bëgg def ci àdduna bi nit mën ci bismillahi rahmaani rahim mm. ki lépp lu mu bëgg lu bon lu nekk ci moom mu bëgg mu deñ mm. mën na ko deñ ci bismillahi rahmaani rahim ndax bismillahi rahmaani rahim boo ko xàddatee mm. mu jox lim mu taxaw nga bind ko limu 111 mm-hmm. boole ko cent onze xeer mhm. ak cent onze puso te bu ko nit sangoo mhm. mboolem doomu aadama lu nekk ci mbiram mhm. day dañ ba set wicc mboolem loo xam lu nekk ci lu bon la bisimilah rahmaani rahim boo ko dee liggéey euh, douze mille six cent soixante six koy liggéey wërsëg da la yomb lool xaalis si la yomb lool boo ko mën de liggéey di ko werdu nga wut ko la ko bindal mu bindal la ko nga jëfandikoo ko boole ko li mu koy booleel nga xëy sangoo mboolem loo bëgg ci àdduna bi day faju parce que lépp loo gis ci àdduna rek mm. bismillahi rahmaan rahim mooy tàmbalikaay ba mooy caabi ji nga xame ne mm-hmm. képp ku ko yor mm-hmm. loo ubbi moo ubbeeku bismillahi rahmaan amul dara loo ubbee bismillahi rahmaan rahim am ci loo xam ne ak mbugalu yàlla lay doon am ci loo xam ne ab esag lay doon am ci loo xam ne am naqar lay doon moo tax ñu ne lépp lu ñu di def ak lu mat doon ci àdduna bi nag jiital bismillahi rahmaan rahim waaw ndax na yàlla ci àdduna da cee nekk muy arrahman mhm. na yàlla ci alxan ci alaxira dafa nekk muy arrahim mhm. bismillahi nekk ci muy maa ngi commencé maa ngi tàmbale mhm. ci li may waaje def ci turu suñu borom loolu lay tekki arrahman di tekki yow yàlla mi ay yërmande ci ci àdduna arrahim yow yàlla mi ay yërmande ci alaxira kon doomu aadama ci loolu la nekk mun a passé loolu doomu aadama mënut a génn loolu moo tax bismillahi rahmaani rahim sekk yi nekk dafa bari lool bañ ne ba ku rab jàpp. Mhm. wala nga loo dugg mu so rab sonal la loo dugg di sotti. Mhm. mën nga ko bind 66. 66. boo ko bindee 66. Mhm. wut ay xobe ngeer. boole ko ci. ak sunguf su naan kolonting. boo ko ci boolee bu la rab jàpp rab bi bu fekkoon da ngaa sangu bay bëgg de rab bi. boo ko sangoo ñetti fan mu deñ 3 jours bisimilah rahmaani rahim tamit. mën nañ cee boole ñaari nit. parce que bis daa am miim. laahi am xasa xeer. rahmaani am miim. raxiim mi am miim mhm. kon bisimilahi rahmaani rahim am ñetti miim ak benn alsaxeer waaye benn miim gi mhm. moom ngay ubbi mhm. def ci baatu allahu bi ubbi allahu gi encore def ci baatu arrahmaan gi ubbi arrahim gi def ci baatu rahim gi ubbi arrahim gi kon dafay nekk ñetti miim ñetti miim yooyu ñetti miim yooyu ci boppam boo ci dugalee turu nit ki def ci 5995 ci suuf mooy abajada xaw a sa xattaay ba mu jeex doomu aadama bu yàlla bind ci àdduna yaa ngi ci chiffre boobu mooy 5995 mooy ndox mhm. suuf safara ngelaw ñeent doomu aadama ñeent rawaane rek moo am ci doomu aadama ñeent doomu aadama loolu fi ne boo ko bindee mhm. bu fekkente ne jigéen la mhm. sa jëkkër dem di njaaloo ji wala muy topp jigéen ñi boo ko bindee nga jàppoo ko sëy moom sa jëkkër dootu di fenn bu fekkente ne góor la sa jabar dem soo ko defee pare nga jàppoo ko boo ko jàppoo pare dékk njàpp mi def ko ci benn bi bu ndaw takk ko fi lang wala mm. nga takk ko si néeg sa jabar fu mu mën a nekk ci àdduna dina dikkaat ah, ci sakkat bismillahi rahmaani rahim liñ ci xam lépp moom buñ ko doon wax du fi jeex ci émission bi waaw. jërëjëf euh, Cheikh euh, Bara Niane am na solo ci ñetti secret yooyu mu leen indil gis ngeen li mu leen wax lépp lu bokk ci bismillahi rahmaani rahim li ci dëxëñu li nekk secret ci biir bëri na xam naa beneen yoon sax dina ñëw gën a yaatal mais gis ngeen loolu mu leen indil mën ngeen ci jëriñu tawféex la. acca damay ñëw jàll ci beneen euh, secret boo xam ne moo di ñaareelu ponk ci biir bëggaan naa ñu dellusi ci ñu yaatal ñu waxtaan ci mu dee yaa fatxu bi bëggoon naa gën leen cee wax. lan moo nekk mbooti ci biir. waaw xam nga baatu yaa fataaxu di tur yàlla. yaa fataaxu waaw. yaa fataaxu nekk na baat boo xam ne mooy tekki ubbil yaa fataaxu baabun mooy bunt fataaxu mooy ubbi baatu ubbi yaa fataaxu yàlla ubbil ma yaa fataaxu mën nañ ci liggéey loo xam ne nit lu mu tëju tëju tëju tëju ci àdduna bi ñu ko liggéeyee mu ubbeeku danañ koy bind nag yaa fagi fagi la ñuy eh, ubbi mm. def ci sa tur waajuru jigéen ak sa tur waajuru góor ak sa tur liggéey ko juróom-ñaari sondeel mm. bu ñu ko liggéey ak ku mën doon ci àdduna mm. ci yaa fa taxu góor lañ koy ubbi mu bu fekkante ne koo xam ne dafa am feebar boo xam ne kenn xamul lu ko daal mm-hmm. moom la ñuy bind yaa fa taxu googu boole ko wa jaxal naa min bayni aydihim shaddan wa min xalfihim shaddan fa axseenam fam laa bisurun bi nekk ci sotu mm-hmm. ko boole ko war xamaro xaddan naa manaashi la hatta haadi kal xurjunil xadim laa sam yan bixi laa an tudd kal xamara waa laylu saabiqu nahar wa kul fi falaki yasmaun bool ko xaali xaayilu minhum laa taqtul yusuf walqum fil xayabata jubbi mhm. yaltaxitu bada ziyarati in kuntum faaxilin xaalu yaa abada maa laak laa taman na xalaa xalaa gi la ñuy yem biñ mhm. ci turu ki suñ ko defee pare mhm. nit ki bu ci sangoo naan ci ci saafara soosu ci alxuraan jooju mboolem feebar bu nekk ci moom ci àdduna day dañ ba set wicc ci baatu yaa fa taxaw kooku yaa fa taxaw tamit li muy def dafa bari am nañ ci lu ci liggéey ci jaaro ci yaa fa taxaw pare boole koog kawra bukki mhm. nga xam ne dañ koy lakk kawra bukki gi boole koog moom ubbi jaaro bi def ko ci mhm. ñu def ko ci nàndal ko bind yaa fatahu cent soixante-dix-neuf mhm. yaa fatahu buñ ko bindee pare jël secret bi nga xam ne mooy secret isaa jaa nasrullahi wal fatahu lañu ñam comme fatahu day ñëwaat isaa jaa nasrullahi wal fatahu lañu ñam bind inaate naakal kaw duñ bind sarage duñ ko bind sa kaw rek lañuy wax bàyyi boo ko takkee foofu foo nekk di nga di nga nekk ci kaw fépp foo nekk nit ñi dañ la yéen a jàmm fépp foo nekk wërsëg da la yomb te mën ngaa nekk ci bërëb téeméeraat mhm. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Bara li ma leen di wax ah ñàkk euh, jëflanteeg moom daal wóorut gis ngeen secret yi mu leen di génne te leneen ak leneen ak leneen mu ngi ci biir yoo xam ne ñëwaguñ ci dinañ ci gën a yaatal xam naa tey du tey sax ëllëg dinañ ci ñëw gën a yaatal dama leen di indilaat beneen secret xam naa nag ti la ñuy tëj émission bi neex na nag xam nga li gars yi nag bi daal xajut ci cin li damay ñëw ci ñetteelu sacré allahu tojal ko gars yi xam naa ñoom ñu lay déglu fi mu ne nii ba fekk ngay daaneel sa émission mu jeex. alhamdulilah sacré allahu mooy lépp ndax mooy suñu bopp subhanahu wa taala allahu allahu boo xam ne bari na ay njëriñ yoo xam ne kenn mënu koo wax allahu ndax allahu xam nga doomu aadama am na ñoo xam ne bu ñuy nooyi la ñu nooyee hu noonu nooyee loolu lépp secret asraar la allahu googu xam nga allahu boo ko adatee day tekk 66 66. Mhm. allahu teg benn mhm. boo boolee ñaari 66 mu nekk ñaata 6666. Mhm. muy laaf sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam muy 6666. baat allah boobu mën nañ cee liggéey nit ki tële mën nañ ko liggéey ci moom mu faju nit ko am ay jafe-jafe feebar nañ ko liggéey mu faju nit koo xam ne jabaram dafa dem wala jëkkam dafa mën nañ cee liggéey mu faju ci baat allah boobu mën nañ cee liggéey tamit secret boo xam ne koo xam ne du gis du gis bu baax ay bëtam dafa lëndëm mën nañ ci liggéey koo xam ne koo xam dafa am ay ndoxam ci rek yooyu ci baat allahum ci secret tur yàlla la duñ la jox sunguf fanaan ci secret alxuraan la hmm. waaw duñ la jox sunguf fanaan secret allahum boobu mën nañ ci liggéey ci doomu aadama lépp lu mu liggéey day sotti ci secret allahum boobu ndax dañ ko bind 66 hmm. bi nekk 66 hmm. benn 66 bi moom la ñuy booleeg meewam nag lañ koy booleel jël lem def ko ci bind war a fànnaaxu makkaane xal def ko ci 66 composé ko def suñu werd yoo xam ne mbiru baatin la def ko ci kooku buñ ko boole mooy nag kooku boo ko sangoo mm. boo wuti jikkee di nga am loo dugg dina sotti yaram bi dis da koy dindi xalaat ba da koy dindi te xaalis boo yor day toog buñ ko bindee baat baat allah buñ ko bindee pare mm-hmm. buñ ko bindee nga takk ko mm-hmm. kooku ko takk mm-hmm. balaa ñetti weer di nga am kër acca kon dégg ngeen yéen ñi ngeen xam ne dañuy bëgg a tabax duñ mën a tabax wala ñoom xaalis muy seey loolu kuñ ko bindal bu fekkente ne yaa ngi am xaalis te xaalis bi doo xam fu muy jaar di seey xaalis boobu day toog sa loxo ci bari na lool waaw xam nga waxtu bi ak jamono ji ak xataay jamono bi mooy tax ñun <laughs> jot beeg yooyu. acca yéen ñi nga xam ngeen xaalis muy toog seen loxo ñenn ñi di koy faral naan loxo bu bënn la ñii ñu ngi fàggu maanaam màkkaan comme ni nga ko waxee kër doo jaaree fii rek gis nga da koy yomb euh, tawféex la comme ni ma leen ko waxee beneen rek yoon dina ñëw gën a yaatal acca tey dañuy bàyyi nga tàggatoo waaw alhamdulilahi rabbil alamin di leen nuyu di leen ziar bu baax di fedd la suñu kóolale ak yéen parce que yaakaar naa yàgg na lool di nuyu bu baax waa Cambérène 2 nga xam ne dëkk boo xam ne gis nañ ni ñu taxawoo te nit moom yaakaar naa dëkk ci ab quartier di nga dem ba bokk ca dëkk ba ndax loolu dina yàggaay moo koy waral parce di gën a sant yàlla di gën a ñax jullit ñi ñu gën a yéenante jàmm ñëpp ndax yéen bi sallallahu sa wasallam nee na ab jullit dëgg mooy ki nga xam ne làmmiñam du lor mborom doomu aadamaam loxoom du lor moromu doomu aadamaam mhm. bakkanam du lor moromu doomu aadamaam bërëm du lor doomu aadamaam ñoo xam ne diine islam ti mooy diine ji gën wér mhm. ndax yàlla dafa wax ci alxuraan diine islam du diine fitna mhm. hatta la takunu fitnatun wa yakunu diinu lillah ne ba pare diineel islam nekk na diina joo xam ne nekk na diina joo xam ne bu ci kenn du ci force nit kenn du ci teg fitna nit yàlla dafa ci alxuraan ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet xol ala bi sikrillahi tatmainul xulub waaw kon nag nañu rafetal xol yi ilaa man atallahu bi xalbin salimin te borom xol bu sell rek mooy ki nga xam ne ëllëgam na xëy moom lañ tijji bunti àjjana yi te doomaadama kenn ku ci nekk war nga jàng sa bopp jàng sa bopp gi mooy ci àdduna gi nga rek nga war a xam yow ni ngay doxee sa ëllëg paa nga bàyyi ba ëllëg àdduna gi nga nekkee ci nga xamee sa ëllëg ni muy mel kon nañ di jaamu yàlla bu baax di sellal suñ kem kàttan lépp loo xam ne lu yàlla gërëm la ñu nekk ca lépp lu yàlla gërëmul yàlla buñu ci génn seen ak borom daanu ma leen doomu aadama yi doomu aadama nag boo koy ñaanal neel yàlla génne ba pare yàlla mësal la ci yow parce que yàlla lu ko neex mu def mhm. te yàlla dafa ci alxuraan du ma ñëw di leen soppi mhm. ndax yàlla mënut a ñëw àdduna di sot àdduna bi waaye àdduna bi ñoo soppi seen bopp mhm. moo tax yàlla wax ci alxuraan ne inna allaha la yuxayyiru maa bi xawmin hatta yuxayyiru maa bi anfusihim yàlla dafa loolu kon dafa am loo xam ne jagle yàlla la mooy wallahu yaxtasu bi bi képp koo xam ne foo ma nekk ci àdduna bi yàlla def jàmm suturaal leen aar leen barkeb alxuraanu karim barkeb seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fi amaanillah